asalaamaaleykum maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, di nuyu sama mbokku euh, internet yi sama frère yi nga xam ñi ngi bàyyi xel euh, live yi ñuy def saa ne di présenté waat rek man la Abdou Karim ngeen gën ma xam ci Karim xurum xaaxa Karim nitu dëgg membre mouvement dëgg di rappeur activiste. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp saa ne di ñaan yàlla rek bañ fex lu ñuy xebe bañ a def it lu ñuy xebe maa ngi nuyu ñëpp di saa su ne di leen wax ni bis bu ne jamono bu nekk dañu bëgg def ay live di échanger ak yéen ay taxaw seetlu ak ay points yoo xam ne ñu bari duñ koy faral di bàyyi xel. mu nekk ay mbir yu ama ama am solo yoo xam ni vraiment lu jar a bàyyi xel la Pape Moussa Sow maa ngi lay ziar maa ngi ziar a baax a baax bàyyi nga ma ne Pape Moussa Sow damay ñëw si li nga xamante ni mooy euh, mooy mooy euh, Ousmane Sonko dem fële ca ca ca parce que tamit man euh, man je suis mieux pour mën a wax ci ci ci ci ci Casamance xam naa ni du question parce que Joola la Abdou Karim Gueye laa tudd sénégalais la Casase la malien la africain la panafricaniste la gëm xam nga idéologie boobu laay doxee. mais su may wax dama wax ni maanaam euh, aw ma origine boo xam ne sama maam Casamance la nekk déedéet même man dama nekk jeune sénégalais boo xam ne damaa sob sob bi nag peut xëy na sikk la mais man yàlla moo def loolu ci man damaa dem paas jël sama paas li may wax nii def na war na def 7 ans wala war na def 8 ans ma paas parce que dama yàgg dégg coowal Casamance ñu naan ay affaire yu rebelle xam ma paas dem ba biir Casamance dem ba biir Mangokuru dem ba ci biir ñi ñuy jooyee ñi ñuy wooyee ay rebelle yooyu ñuy wax noonu. les combattants ma dem ba ci ñoom laaj leen waxtaan a ñoom laaj leen dama ko def donc kon man am na yu bëri yoo xam mën naa ko mën naa ko expliquer ci wàllu ci wàllu wàllu wàllu Casamance mais li ma ci bëgg jublu mooy euh, pour ñu comprendre ni dafa am yu bëri bari yoo xam ne l'histoire de la Casamance a été falsifiée te ñu bëri xamuñ ko te ñu bëri ñemewuñ koo wax te ñu bëri ñemewuñ ko expliquer parce que au fait ñun l'histoire nous a ñun liñ ñu wax dañ ñu fen ngeen ma ci baat bi waxuñ ñu dëgg waxuñu li am ci Casamance parce que ce qui s'est passé euh, en réalité dëggantaan jaay mooy xool leen rébellion bi kañ la commencé maanaam ñi nga xam ñu ngi doon ñaxtu di seen indépendance kañ la commencé parce que Casamance dëkk la boo xamante ne nii sunu waa ji la fa xew fa fa ndorteel gi ñu bëri nag du ñu comprendre parce que wax ji ay dëgg la yoo xamante ni yàlla rek moo tax ñu koy wax mais a comprendre ñun kenn xalaatul may ka jox Casamance indépendance am Casamance ci Sénégal la bokk dañuy ñaan yàlla ñun ñëpp ñu booloo nekk benn ñu la dara sa waaye division bi sax amul njëriñ waxtuma laa ko muy dëkk boo xamante ne nii maanaam mais lan moo xew dëggantaan ci Casamance balaa may ñëw ci Ousmane Sonko l'histoire l'espoir de la Casamance balaa may ñëw ci loolu moo wax lan moo xew dëggantaan dafa am dafa am loo xam ni mi ngi fa xew histoire la Abbé Diamacoune bi ngeen di dégg parti politique la yor MFDC bi ngeen di dégg ni parti politique la woon kese parti politique kese la woon ñu bëri xamuñu loolu que ce qui s'est passé en réalité mooy les années 60 li xew mooy armée bi dafa dem tirer ci kaw population Casamançaise bi nga xamante ni ñoom dañ doon dem juste di manifester pour jël seen récépissé pour mën a mën nañ créer seen parti politique ñu rey ay maire armée bi ay nit yoo xam yoruñu sax puso yoruñu paaka yoruñu daal armée sénégalaise tiire ci seen kaw rey leen rey ci ñu baree baree bari rey ci ay maire ay pa ay xale loolu dafa am te loolu man musuma dégg benn yoon fu ko waxee dans l'histoire du Sénégal wala ñu wax ko ci école Sénégal yi wala ñu jàngale ko fenn ci histoire kenn musu ko wax est ne loolu moo am Casamance Casamance dañ fa ay nit yoo xam defuñ dara boobu xeex amul dara amul lan moo déclenché xeexu Casamance loolu moo ko déclenché mooy armée sénégalaise dafa dem tiire ci ay nit yoon manifester rey leen lan la ñuy jàngat ci loolu mooy à chaque fois même chose mi ngi am loolu moo am tey boo xoolee moo am mil 2012 fii ci ci ci bi ñuy xëccoo fii pour jële fi Abdoulaye Wade loolu yàgg na am ci euh, moo am ci Blondé Diop moo am ci yu baree baree baree bëri donc loolu moo créé nag mer bi nga xam ne moo indi problème yi am ba pare français yi def ci seen loxo nag ñu baree bare nekk ci di xam di jàpp. maintenant pour wax ni dëgg dëggantaan li nga xam ni moo war a am ñu war ko waxtaanee tey muy affaire Ousmane Sonko bi nga xamante ne frère Casamance parce que lu musul am dans l'histoire parce que tey man dama xool mbooloo bi nga xamante ni ñoo dem fekk ji fekk ji Ousmane Sonko wuy ji Ousmane Sonko Casamance wuy ji ko ci ci ci ci ci ci meeting bi sama xol dafa tooy parce que dans l'histoire du Sénégal histoire du Casamance musul am lool Casamance musul am yaakaar bu mel nii Casamance musuñu am lii damay wax ni ndax sénégalais ñi ngi def ay taxaw seetlu ci li nga xamante ni moo am ci meeting bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko Casamance taxaw mbooloo bi nga xamante ni ñoo taxawoon ci kanamu ci kanamu Ousmane Sonko yaakaar bi ñu am ci Ousmane Sonko ci lu musul am ci dëkk boo xam ne dara amu fa Casamance am na lépp ci richesse Casamance mooy dëkk gën a naat ci Sénégal suñu politique fa dara dara lañ fa defuñ après ne leen yéen Sénégal ngeen bokk par force da ngeen di toog Sénégal par force te dara defuñ ko demal Casamance nga xool hôpital hôpital boobu hôpitaux yu baax amu fa école yu baax amu fa miir yi day daanu tabaxi baaxul mooy suuf si gën a naat ci Sénégal mooy dëkk bi ëpp ethnie ci Sénégal mooy dëkk bi gën a baaw naan te ñoo gën a bëgg Casamance ñoo gën a bëgg gan Casamance ñoo gën a bëgg gan ci ñi ma xam ci dëkk yi nekk Sénégal yi à part Saint-Louis Casamance am na pël am na joolaa am na séeréer am na saraxule Casamance xeet yëpp ñoo fa dajaloo am na olof te ñoom ñu ngi dund ci jàmm nekk fa ci jàmm nekk dëkk boo xam dafa baaw naan nekk dëkk bu naat ba pare am nag am tool yu baax suuf si baax ba pare suñu njiit yi ko tubaab dugal ci seen loxo pare amuñu benn leader boo xam ni leader bu am personnalité la bu ay leader yu rek ba tey ñu naan gis ngeen fi ku jël malet dem dugg ci biir maki bi jox ko ñi nga xam ne dañuy woote ay combattant daane jox ne ko pour pour fay pour fay ayu Casamance est-ce que loolu fay solution la woon pour ay fay fay euh, ayu Casamance bi léegi damay ñëw si wan leen si benn image ngeen xool bu baax a baax a baax parce que je pense que c' est très important parce que à chaque fois ñun suñu gis-gis dañ ko war di échanger ñu xool naka lañ mën a dimbalee suñu askan naka lañ mën a boolowee naka lañ mën a def ba réussir combat yi nga xamante ni mu ngi nekk suñu kanam ñu mën a faayet ba xam ni instant ñun am nañ leader boo xamante ni tey li ñu am ci moom mënuñu ko am fenn te musuñu ko am Casamance musul dajale mbooloo mu toll nii waaw loolu nag c'est très important. Casamance musul dajale mbooloo mu toll nii Casamance sama gars yi dëkk la boo xamante ne nii 38 ans de guerre la 38 ans ñuy dëgg ay suñuy frère di dëgg ci ay mine suñuy frère casacé ak suñuy frère euh, mi armée bi dem di confronter ay nit yoo xam ñoo bokk benn famille bokk benn dëkk bokk benn jëm-jëm ànd di xeex ñuy reyante suñu frère militaire di décédé suñu frère casacé di décédé. ñu nekk ci dëkk boo xamante ne nii dëkk bu waroon mën a jëriñ suñu Afrique la waroon mën a jëriñ Sénégal ñu yàq ko politiciens yi yàq ko parce que Casamance au fait politiciens yi ñoo ko indi xool leen rébellion bi kañ la déclenché lan moo indiwoon accords yi tax ba Casamance ñee ñoom ñu ne Casamance bokkul ci Sénégal 81 la Senghor jógee Sénégal la Senghor jógee ci nguur gi 81 la xeex bi commencé parce que dafa am yu ñu signé woon a Casamance dañ leen fen wor leen won leen ginnaaw trahir leen Casamance problème bi mënoon na réglé bu yàgg mais parce que amuñu woon leader amuñu woon kilifa si vous vous rappelez de Nelson Mandela bi muy taxaw Afrique Afrique du Sud di wax teg leen ngànnaay ñëpp teg seen ngànnaay ne ku yor balu fital ku yor fital génneel ci biir ku yor jaasi teg ko ku yor lépp Afrique yëpp teg seen i loolu la Sonko indiwaat Casamance. mbooloo bii ngeen di gis nii mbooloo la boo xamante ni pël mi ngi ci Joola séeréer saraxule ñëpp ñu ngi ci chrétien musulman animiste ñëpp ñoo booloo ñu wuy si Ousmane Sonko muy espoiru Casamance ci xeex boo xam ne depuis 38 ans la. dama yoon je me pose la question est-ce que Ousmane Sonko sax moom ci boppam comprendre na tey message bi nga xam ne Casamance wax nañ ko ko ak respect bi ñu ko jox ak cër bi ñu ko jox. Sénégal mënuñu amaat chance bu weesu Ousmane Sonko ci dimbali Casamance tey Ousmane Sonko bu taxawoon tey am na cër boo xam ne Casamance bu taxawoon ne teg leen seen ngànnaay bàyyi leen guerre bi soxlawul ay maret soxlawul dugg ci makki bi soxlawul gis kenn kon négociation yi gars yi di def di businessé xeex bi di lor doomu aadama yi dem di créer affaire yoo xam ne amul ay bandi di ci laxasu ñuy fekk ay boutiquiers yu jaay seen jaay Casamance ñu nangu ko fekk sàmmkat buy sàmm ay nagam ñu xeex ay bandi rax ci tubaab bi dugal ci seen loxo état bi di jaay terrain yi fii ñuy jaay zircon bi di jaay pétrole loolu yëpp c'est des trucs yoo xam ne tubaab bi ñoo nekk ci nekk di leen ko dooleel tey am nañ solution bi mooy Ousmane Sonko bi nga xamante nii Casamance Casa si bëgg nañ ko Tambacounda bëgg nañ ko Ziguinchor bëgg nañ ko dakaar bëgg nañ ko sëriñ si bëgg nañ ko jeunesse sénégalaise bëgg nañ ko mag ñi ormal nañ ko cëral ko respecté ko mu nekk nit ku am diine nit ku conscient nit ku dal nit ku set loxo ñu war a jàkkaarloog askanu Casamance ne leen teg leen ngànnaay ñu teg seen i ngànnaay kon ndekete ñu am nañ chance boo xamante ne mënuñ ko sax comprendre mu bëggoon rek juste pour leeralaat sénégalais yi ñu comprendre possibilité bi ñu mën a am ci Ousmane Sonko chance bi ñu am ci Ousmane Sonko dimbali bi ñu yàlla dimbali ci Ousmane Sonko ñu comprendre ko mën a dimbalante suñu biir ñu xam ne lii kenn du ko foowee sama waa kenn du ko foowee askan kenn du ko foobe Casamance am na ay politiciens yu fa nekk yàgg fa lool nekk ay homme politique amuñu fa benn njëriñ bu ñu gënul xam xeex bi sax duñ ko tàyyi parce que dañuy xool ki nekk au pouvoir président bi nekk fii ñoom ñu utiliser ñi nekk ci Casamance di jël xeex bi di créer ay mallette di xool seen intérêt personnel di xool naka la ñuy def ba ñu jox leen xaalis pour ñu mën ci tànn seen part diviser indi ay problème parce que loolu yëpp dëggu lalu ko ak patriotisme mais nga tey Casamance pour walla ni ay nit jàmm lañ ay nit yu baax lañ que nit ñi ñooy créer affaire rek boo demoon Casamance man dama dem ba foofu man man dama dem ba Mangakuru laa jël Casaase yi xam nañ li wax luy Mangakuru man maa dem ba gis Casaase yi dem ba déglu leen dem ci biir Macky bi déglu leen ñu wax ma seen xalaat wax ma vraie histoire bi ni mu demee am na yoo xam ne bëgguma si sax jaar wax leen dëgg dëggantaan lay nan la demee ak Aba Diamacoune lan la mujjee wax. ñi ne fi di wax yëpp naan ay Casamance ay rebelle c' est pas vrai c' est archi faux y' de choses yoo xam ni histoire jàngaluñu ko dañ ñu fen jàngaluñu ko suñu école yi waxuñu réalité bi dëggantaan waxuñu li xew ak ay affaires yu bari yoo xam ne xew na si te nit ñi xamuñu leen ko. léegi nag on a de la chance on a de la chance ak ak président Ousmane Sonko on a vraiment de la chance la chance mooy yàlla may na ko tey Sénégal yëpp dañ ko déggal parce que dafa mat kilifa aussi parce que kilifa pour nga mat ngeen baal ma ci baat bi kilifa pour nga mat kilifa foog nga xool ni ngay waxee kilifa pour nga mat kilifa pour nit ñu ormal la foog nga ormal leen kilifa pour nga mat kilifa foog ngay delloo nit ñi li ñu moom ñoom ñu jox la li nga moom loolu mooy kilifteef moo tax tey Casamance wane nañ ni ñoom am nañ kilifa wane nañ ñoom am nañ kilifa mbooloo bu toll nii musuñu dajaloo ci Casamance musul am mbooloo bu toll nii musul am Casamance dama xool ku la neex dama laaj homme politique bu la neex dans l'histoire du Sénégal li xeex bi di am Casamance coow li am Casamance lu mus a am mbooloo bu toll nii musul daje Casamance musul am musul am Casamance ñëpp a génn ñi mer ñi kontaan ñi nekk ci ay jafe-jafe ñi ñëpp ñu ngi am yaakaar ci ni kii bu ñëwee incha allahu rabbi dina fexe ba dindi lépp loo xamante ni gàllankoor la bu nekk seen diggante ak wan ginnaaw bi leen état du Sénégal wan ginnaaw parce que Casamance état du Sénégal dafa leen wan Casacé yi nga xam ñoo nekkoon Casamance ils sont pas sérieux ils n'ont été jamais sérieux parce que dañoo nekk ci utiliser xeexu Casamance bi di ci enrichir di régler seen problème da dem Casamance nga gis politicien boo xam ne këram day rafet mel mu mel ni palais présidentiel fekk kër gi mu dendal wala ki nekk ci ginnaaw mi ngi nekk ci baraak bu sonn te pourtant jàmbaar la mi ngi yor ay nagam mi ngi bay mi ngi yor ay toolam di liggéey am chance ko ma def benn parenthèse bu ndaw gars yi dañuy wax naan ñi nekk ci internet bi di wax rek ay minorité lañ bu ndaw dama bëgg ngeen xam bu baax a baax a baax njëriñu réseaux sociaux yi. gis nga Casamance bii tey liñ ci wane nii Casamance image bii nii tey fi mu àgg ah image bii fi mu àgg weesu na sax sunu njort ndax internet mu amee solo bu fekkee yéen ngi bàyyi xel Abdou juuf rajo yi ñoo ko fi jëlee. ndax ay Walfadjri ay Sud FM ñoo ñëw nekk ay rajo yoo xam ne dañoo indépendant 98 96 95 ñoom ñoo jàppale di xeex di expliqué di wax nit ñi di wax seen xalaat ba rajo yi jële fi Abdou Diouf Abdoulaye Wade falu Abdoulaye Wade télé yi ñoo ko fi jëlee télé yi ay Walfadjri télé ñëw beneen télé ñëw yeneen télé ñëw ñuy wax di expliqué di xeex ba Abdoulaye jóge fi Macky Sall réseaux sociaux yi ñoo ko fiy jëlee lu ku nekk. ak li yàlla teg pour mu nekk moyen bi la fi nga xam ne moom la doomu aadama yi di jëriñoo ndax yàlla nit yi rek la am pour ñu mën a xeex dëgg mën ci communiquer communication bi ñuy def nii ma koy wax encore ci Casamance ma ne nekk na espoir u Casamance loolu parenthèse la woon rek li ma wax si wàllu réseaux sociaux yeeg yooyu mais Ousmane Sonko dafa koo xamante ne nii ndimbalu Sénégal waaye ma ne président bu taxaw ne leen man bëgg bu ñu amee incha allah lépp mën a def nañ ko def pour réew mi nekk ci nekk mucc ayib ci wàllu xaalis sàcc dootul amati caisse noire dootul am président bu ñëw ne la naa fexe ba menuisier bi liggéey ci angle bi fii mu am salaire ba pare di fayeeku retraite am ñu xool naka lay def ba ñu mën ko dagg mu am retraite mécanicien bi am retraite koo xam maanaam saa yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ni tey amaana ñun dañ ko war a comprendre bu baax a baax a baax a baax léegi nag solution bi gën a yaatu nag mooy encore jàmmu Sénégal jàmmu Casamance ci ay maam ay maamaati maam ay frères militaires ay frères casacé yu nekk di rente ci àll bi nekk ci àll bi di rente ay nit di leen utiliser di leen dundee di leen sonal di leen ñoxoxal di leen jox ay mietu xaalis ay politiciens di jël ay mallette di dugg ci makki bi loolu jeex na parce que on a l'espoir on a Ousmane Sonko qui e un fils de la Casamance ba pare un fils sénégalais un fils qui a compris et qui a compris que division baaxul un fils qui est digne ba pare conscient ci lan la war a taxawee askanam non je suis fier de cet te xool leen bu baax a baax a baax ma waxaat ko àdduna bi mu sosoo ba léegi ci Casamance ci problème yi di am yëpp lu nekk xew na Casamance kenn musul gis mbooloo bu amee parce que musuñu am kilifa Sénégal politiquement musul am kilifa Sénégal politiquement musul am kilifa kilifa sama koy wax mooy. jamono bi Nelson Mandela di nekk ci digg ndëndam taxaw di wax apartheid bàyyi leen xeex bi ñëpp bàyyi xeex bi Ousmane Sonko toll na foofu. billaahi Ousmane Sonko bi bu ngeen ko falee bu taxawee waxuma la mu dem ci ay makide bu taxawee Casamance ne leen teg leen ngànnaay yi ñoom ñëpp ñu teg seen i parce que xam na ñi c'est leur fils ba pare te bëgg na réewam te bëgg na Sénégal. Ousmane Sonko Sénégal Ousmane Sonko romb na sax Sénégal kii romb na sax Sénégal kii espoiru Afrique parce que tey. même politiquement politiquement kenn dootul ñeme ñe foo dem ci Afrique dina mën a am un homme politique jeune bu mel ni Ousmane Sonko bu mën a taxaw def rupture totale par rapport ñi nga xam ñoo fi nekk nekk ay marionnettes ci tubaab yi nekk ay marionnette parce que problème yi nekk yëpp ñun tubaab ñoo ñu ko indi te tubaab ñun homme nit yi ñu am nii yëpp mu nekk jafe-jafe ci ñun tubaab yi ñoo ñu ko teg. boo xoolee nga xool ko ci nga xool ko ci Senghor xool ko ci Abdou Diouf ab Abdoulaye doon na xëccoo bàyyi ko si ñu mën ko gañee mën ko daaneel parce que tubaab bi dañuy fexe ba jaar ci suñu biir ñëw dugg ci xale yi créer mouvement créer affaire ñun ñu jug ñun suñu askan ñun ñooy jug xeex ak président bi nga xamante ni suñu njëriñu bopp la doon def boo ko xoolee Gbagbo doy na comme exemple Gbagbo mi ngi ne dañ ko acquitté parce que xam nañu lépp ñoom ñoo ko doon def ci ginnaawam bëgg ko takkal pour wàccee ko ci gi pour indi Ouattara marionnette loolu nag laa bëgg ngeen comprendre ko ni chance boobu ñu am am ko amoon fexe ba jële ko fi am ku mel ni Thomas Sankara tubaab bi fexe ba rey ko am ku mel ni ku mel ni euh, Mamadou Dia Mamadou bi fexe ba jaxase ko Senghor Senghor ne da ko doon coup d'état ñu tëj ko ci kaso bi Mamadou Dia mu génnee kaso bi benn wax la wax mu waxee mu ne mu ne Senghor on sait euh, mu ne fóonante nañu accolade def lépp mu ne mais mu ne baal naa ko lépp mu ne lenn lenn rek laa dul baal Senghor ko père loo dul baal Senghor mu ne Senghor lenn rek laa ko dul baal baal naa ko lépp mais du ko baal lenn ñu ne ko lan mu ne moom bi mu génnee fi Sénégal toll loolu moom mënu ko baal Senghor parce nee na euh, Sénégal dafa nekkoon dëkk boo xam ni moo nekkoon mënoon na influence Afrique yëpp la nekk fu sori parce que dañoo amoon benn ngëm-ngëm ba nekk dëkk boo xam ñëpp ñu doon teg bët nekk teel nekk ay nit am conscient nekk dëkk boo xam dañu teel gëm seen bopp ñu ko mu nekkoon di liggéey liggéey bu rafet tubaab bi fexe ba jëlee fa parce que dafa ñëwoon di indi rupture si diggante ñun ak tubaab bi xamal ne Sénégal c'est un pays indépendant le Sénégal est un pays boo xam moo moom nag idéologie boobu la yor xam-xam boobu la yor gëm-gëm boobu la yor patriotisme boobu moo nekk ci moom te ñun ñi ànd ak moom patriotisme boobu moo nekk ci ñun te loolu dafa am solo parce que du moom moo def loolu ci ñun da ko fekk ci ñun ñu ànd ak moom maanaam ay yarikati xëddin dañuy dañuy yëgoo loolu yëpp yëg yëgoo la rek montre yu baax yi ñoo bokk heure moo tax ñun ñëpp ñu fekk si ko léegi nag dañoo jooy Casamance jooy koo jooyoo jooyoo jooy ba sonn ay dëgg ci mine ay soldats yuy dee suñu frères yuy dee ay maires yuy dee ay guerre yooyu yëpp tey am nañ kilif kilifa tey yàlla dimbal nañu am nañ kilifa boo xam ne mën na dajale ethnie yëpp mën na dajale Kasase yëpp mën na dajale sénégalais yëpp mën na dajale kilifa diine yëpp moo xam animiste moo xam chrétien moo xam musulman moo xam ñi dem ci xamb yi ñëpp borom tuur yi ñëpp daje nañ ci kanam Ousmane Sonko ne ko yaay sunu espoir fii yaa ko moom. kooku moom foofu nag kilifa boobu parce que musu ama musu am dans l'histoire Sénégal kilifa boobu nag tey moom la moom laa bëgg ngeen xam ni.

mu bañ ñu rëcc comme ni ni Ouattara ni Gbagbo rëccee cas euh, rëccee waa waa Côte d'Ivoire mu bañ ñu rëcc comme ni Mamadou Dia rëccee ngir yàlla mu bañ ñu rëcc comme ñi nga xamante ne nii tey ñi nga xamante ne dañu woon taxawoon pour xeexal seen dëkk mu bañ ñu rëcc comme yu baree bari ñi nga xam ni rëcc nañ leen seen dëkk yi ay ay ay ay Kwame Nkrumah ay dëkk yu réew yu baree bari ay Sékou Touré nga xam ne ñax fa nañ teg tubaab bi fexe ba teg ko ay ndëgg sërëx ba yàqal ko loolu moo dellu ci Sénégal te yu mel nii par cent ba cent lay feeñ nag par cent ans ba cent ans lay feeñ génération bi ñu nekk nii bu ñu amul Ousmane Sonko mii comme président au Sénégal on est foutu cent ans après ñun suñu génération ñu ci bari dañ laaxul décédé après ñeneen ñëw ñu nax leen pendant cent ans encore ñu kon ne sax ci buumu njàm bi ak di sucer suñu deret di nangu suñu pétrole nangu suñu ressource nangu suñu lépp loo xam ne am nañ ko du ñu tàqali ko mukk ak problème Casamance di gën a nekk ci problème rek donc ngi jégalu ñëpp di baalu ñëpp ak leen wax ni Karim Gueye la seen frère activiste à chaque fois rek di def ay taxaw seetlu ci ngeen xool bu baax ni mbooloo bu mel nii kenn mësu ko dajale Casamance mbooloo bu mel nii kenn musu ko dajale Casamance kon tey je pense que la solution l'espoir de la Casamance c'est Ousmane Sonko l'espoir du Sénégal c'est Ousmane Sonko ci dëgg ak fulla ak fayda ak ànd xeexal Sénégal ci fulla ak fayda ak bàyyi di njëkkante di lekk àllu réew mi di sucer deretu ñi ñi ñuy xeex tubaab bi dina gën a dooleel ñoom ñu nekk ci jàmm askan wi di sonn loolu dafa jot mu jeex jërë ngeen jëf wa salaatu wa salaam ala rasulullah Karim Gueye la woon ci seen émission euh, ci seen euh, seen lu fi baax ngeen xam ni euh, subhanahu moo def lu fi bon ngeen xam ni man la sama doy di ñaan yàlla rek saa su ne di bañ a wax lu ñuy xebe ak bañ a def lu ñuy xebe jërë ngeen jëf wa salaatu wa salaam ala rasulullah